asalaamaaleykum internetu Sénégal ñu am mbégte di fi dalalaat euh, Sam Sam kenn dootu ko présenté dem na ba bokk Sénégal saa yu ñëwee gàmmu waxtaan ak moom jëlee ci njëriñ ak way yu am solo Sam ma bàyyi la mu yi ak fan si yu lay seetaan. aawudu billahi min ashaytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil xalqi sayidina muhammadin alayhi salaam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu taala an alqutbi alabar wa waliyi alashhar walgawthi alakbar chamsi lwilayati alkubra xafidi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam abil abbasi sayyidi ahmed atijani sharif radiyallahu taala anhu wa radiyallahu an cheikhina wa sayidina wa mawlana alxaaji malik ibni usman wa man lana ilayhi wasilun kashifu algumami assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi nuyu ñu bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam yëpp ñaanal leen yàlla na yàlla sàmm leen lool jiital ci nuyoo bi ñi nga xam ni bi nu jëlee suñu buum takk ci baat ñoom lañu ko jox muy xalif généraux yi ci biir réew jiital ci Serigne Babacar Sy Mouhamadul Mansour ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér Cheikh El Hadj Malick Sy Maodo bu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz Serigne Mansour Abdoul Aziz cheikh Ahmed Tidiane si Mouhamadul Mansour ak njabootu Seydil Hadji Malick yëpp nuyu cheikh Mouhamadul Muntaqa Mbacke ñaanal ko yàlla dolli ko sàmm dolli ko barke. teg ci cheikh Mouhamadul Bachir Abdoul Qadir nuyu njabootu cheikh il Xadim yëpp nuyu mboolem kilifay diine nuyu bu baax a baax kilifay réew mi Seydil Hadji i Sall sama xarit bi ñaanal ko yàlla sàmm ko taxawu ko. ci barkent bi ba li mu mébéta liggéeyal diine ji liggéeyal ko réew mi yàlla mottaleel ko ko ci kaw dund ak wér sago dem Sénégal nuyu leen yéen ñëpp nag ñaanal leen yàlla sàmm leen aar leen taxaw leen jiital ci directeur Alxaaj Mbàkke moom tam sunu soppee boobu lay ñaanal ko yàlla sàmm ko yàlla taxaw ko yàlla na yàlla def sit bi mu dem ba nekk télévision ñaanal sunu jigéen na Ayda Kan ñaanal caméraman yeeg réalisateur yeeg ñi ne ci biir kër gi xam nga nag man ci kër gi laa bokk eh, maa ngi leen nuyu baax baax di leen ziyaar ñaanal sunu xarit ba xam nga bu nu nekkee Sénégal faw nu xalaat sunu xarit ba nga xam ni tey teraa eh, eh, teraanga jumaam Sénégal yàlla ci moom la ko jaarale woon Seyyid Mouhamadou Lamine mbay moom itam nu ñaanal ko yàlla na yàlla kawel aljanaam ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam soxna Aida mhm. alors euh, Sam ñaari at gàmmuwuñu ñaari at nit ñi namm gàmmu xalif bi ci at bi tamit nee na gàmmu du am ku nekk fa nga nekk na nga ko gàmmoo tey Sam nan la nar a gàmmu gi at bi wax ma nag yàllaa ngi def sutura ñun eh, li ñu bëgg dund mooy am kilifa li ñu bëgg a nekk mooy am kilifa te wax naa démb ni moo laa Al Hadj Abdoul si Sy Dabakh radiyallahu taala anhu dafa wax benn dafa dafa defar benn feuille jox ko kuy soppeem ni leen jaar leen ci feuille bi bu ngeen bëggee tekki bu ngeen bëggee texe ngeen baal ma sama baat bee dee na doom topp bàyyi xormal jabar topp jëkkëram gannaaw ba nu jaamoo man lu woy mooy ki koy wéyal loolu nag du jabar ak jëkkër ak doom ak baay rek li xew ci réew mi senegal li fi musa am mooy mag day jiitu rakk topp ci baay jiitu doom topp ci ginnaawam loolu la ñu xam ci kilifteef googu la ñuy dox tax na sëriñ bi nee na bu nu gàmm ku ne na nga gàmmoo sa kër ñun incha allahu taala du nu dem fenn fu dul ci wetu Cheikh Seydou Mouhamadul Habib si gàmmuwul nag waaye comme bu daan gàmm bu gëstoo gis nu bindi jaayam ne gàmm amul bu gëstoo it daf ñuy gis ci wetam ndax loolu mooy mottali kilifa soxna Aida Kane mhm. euh, gi ba ñu annoncé ba tey amul am na ñu bëri euh, dañuy toog ci internet bi. di wax ne waroon na am waroon na am waroon na am des sax ay wax yu teg newul daal ciy tegu est-ce que euh, taalibe war na commenter waxu kilifa kilifa bu jëlee décision est-ce que nit war na ko ñëw di ko teggi wala di am lu mu ciy wax. si El Hadji suñu référence nee na ndax nag man xaw ma ko dul El Hadji Malick li ma lay wax mooy li mu wax ci laay jël référence di la ko wax. nee na taalibe ci kanamu sëriñam ayda. Mhm. taalibe ci kanamu sëriñam xaaj Malick mhm. dafay mel ni néew bu nuy sang dafa war a mel ni néew bu nuy sang xam nga néew bu nuy sang moom loo war a def dañ la koy defal mhm. waaw looy def rek dañ la koy defal parce que génn nga àddina existé too ci jamono mhm. looy def dañ la koy defal Seydi Xaaj Malick ni wala yukassir indahu kalaama walaw yakuna basitan kalaama Seydi Xaaj Malick sa kanamu sëriñ boo ci nekkee bul bul bari wax wejjajjaj wejjajaj wax ci sa kanamu sëriñ wax ju bari non bu ko bari ñu ne ko waa Maodo maam bis dina jot sëriñ bi jox la kàddu jox la ndigal ni la waxal Seydi Hadj ni bu sa sëriñ joxee ndigal ni la waxal ngir moo des tam na wax jagaat yaa may dégg mhm. bu la sa sëriñ joxee ndigal ni la waxal jëlal kàddu ndax ndigal la te ki la war a diggal bu la digalee boo jëfee la mu la digal lor du ca am kon jëfeel ndigal la waaye na wax jagaat wax naa la ñaar Cheikh Al Hadj Malick mi wa man yaqul li cheikhihi haada lima sa sëriñ bu defee bul ko ni pourquoi waxuma nag sëriñ sii jamono bii ñu toll parce que sëriñu léegi am na marchandise chinois waaye sëriñ si xew sëriñ si nitu yàlla yi Cheikh Al Hadj defar ak ñu mel ni ñoom sëriñ si léegi am na marchandise chinois ayda waaw mm. ah, promotion sëriñ 1000 francs am na fii ma ni mhm. Seydi Hadj Malick ni sa sëriñ bu jëfandikoo bul ko pour pourquoi bul ko ne lu tax parce que xam nga lu tax mooy al ulama u warasatul anbiya yi boroom xam-xam yi jëfandikoo seen xam-xam ñoo représenté yonent yi te yonent du juum mhm. dégg dégg nga li ma wax baax borom xam-xam yi jëfandikoo seen xam-xam boole seen xam-xam ak seen xel di ko jëfandikoo ñooñu ñoo représenté yonent yi al ulama u warasatul ambiya yi waaw comme kon te yonent du juum parce que yàllaa ko yónni waaw Cheikh Al Hadj ni lekk gi yàlla lekk gi mam aadama lekk ca garab gañ ko doon tere ca aljana ndogalu yàlla la rafwata mhm. aadamin la llaahu qaddarahu maakaana maakaana fil akwaani za sakami sa sëriñ bu la nee digal bu maanaam bul ko ni pourquoi te li fi xew mooy sëriñ Babacar Sy Mansour moo bëgg ñu gàmm moo gën a bëgg nit ñu gàmm ndax gàmm ni ni ni ni ceeb ceebu jën nekkee plan national ci réew mi noonu la gàmm nekkee xaas ñeel Cheikh Al Hadj Malick bu gàmm jotee nag ku ne da nga ndax guddig juddug yonent bi sallallahu alayhi wa tiijaan màggal ko farata la waaye nag ki ko officialisé ci réew mi ba ku dégg gàmm sa xel dem ci moom grâce à Cheikhul Hadj Malick kon sëtam moo gën a bëgg nu gàmm waaye dafa am koo xam ni responsabilité ñu bari ci loxoom la ne xam la mos naa la wax ay dani la am na koo xam ne bu meree ab bu xolu ñëpp mer ci am na koo xam ne bu kontaanee ab bu xolu ñëpp kontaan ci am na koo xam ni bu amee naqar ab bu xulu ñëpp ci lu ci Serigne Babacar Sy Mansour noonu la toll ci jamono bi ñu toll moo gën a bëgg nit ñi gàmm waaye am na loo xam ni ci ay responsabilité la nekk ci ay loxoom la nekk am na loo xam ni bu ko nangoo daganal ko bu nu ñëwee lu xew dañ naan xalifa bi xamoon na ko waaye moo gàmmul loolu moo waral mu teg ni nanu ajandi gàmm ba yàlla soppiwaat réew mi kenn ku ci nekk nekkaat ci sa bopp terewul nag ku ne nga dëkk man nga faa gàmm ndax gàmm yomb na contexte bi ñu gàmmoo daaw ak daaw jekkat da alaaj ko njëkk a gàmmoo déggoo ma mhm. bi ñu gàmmoo daaw ak daaw jéeg mhm. alaaj Maalik ko njëkk a gàmmoo lu xalifa bi wax ku nekk toog gàmm fi nga ne fa nga ne mhm. gàmm bi ñu ko initié bi ñu njëkkee def gàmm Cheikh Alxaaji Maalik radiyallaahu taala anhu dafa ànd ak maam Alxaaji Rawxaan Ngom ci benn néeg maam rawaan alaaji Malick maam rawaan Ngom moo nekkoon paal maam rawaan Ngom mus nañ ko laaj ni ko lu tax sa njaboot du jànge Tiwaawan lu tax njabootu alaaji Malick du fi ñëw mhm. lu tax doo wuti soxna kër alaaji Malick lu tax doo fa maye soxna alaaji rawaan Ngom ni leen xale jigéen ñooyam fu nu dem gis fa sikk te man bëgguma gis sikku alaaji Malick mm. kooku moo gëmoon kooku moo gëmoon kooku bokkul ak taalib yi seen sëriñ di jël dix mille mu mer di jooy dix rek sa sëriñ jël sa dix ngay jooy maam rawan bokkul ak kooku aja ay da sidi xaj malik woo maam raw xaan ñoom ñaar ñu bokk nekk ci benn néeg ñu jël kaamilu alquran bi tas ko maam sidi xaaj malik jàng xaaju kaw ba mu see jeex maam alxaaj rawaan jàng xaaju suuf ba mu jeex tombeek fajar jot ñoom ñaar ñu àndandoo julli wëzifaandoo kee dem paal kii des tiwaan après par la suite ci la nit ñi ci la Cheikh xaaj Malick woote gàmm gi nit ñi nag di ñëw waaye lii moo initié gàmm kon bu ñu ne ku nekk fa nga fa nga dëkk na nga fa gàmmoo ki ko wax xam na li mu wax. du lu bees du lu bees non ki ko wax xam ba pare ki ko wax it xam na li mu wax parce que ki ko wax Pape Sëñ Bay Mansour du jug décider dara lu dul ku njabootoo ci Cheikh Hadj Malick laaj na la ci xalaat moom xalifa la mooy mag ci kër gi. moof moof mooy sunu baay mooy sunu sëriñ waaye terewul lu cheikh la lu cheikh Seydi Aboubacar si Mouhamadul Mansour di def dina laaj ku setoo ci alaaj Malick mbaa ku doomoo ci alaaj Malick bëgg naa def nangam laaj médecin yi ni ne nangam lu ci fu ñu toll nga ne ko nangam ak nangam ak nangam mu boole xalaat yooyu yëpp ak xalaatu njabootu Seydi Hadji Malick jëfandikoo musul jëfandikoo xalaatu boppam kooku mooy cheikh Seydi Aboubacar si Mansour ku dul jëfandikoo sa xalaatu bopp nag nit ñi jaratul ñooy parce que la nga am na foo ko teg ajaay na ci xalif bi sax foofu la ñuy euh, taxawee un peu parce que dama dégg benn vidéo al amin di ko wax ne dafa dëggu di wax dëgg waaw prés euh, lu muy discours yi muy tenir ba tey ñu naan ko dafa constance ba ànd ak constance maanaam li mu teg boobu ba tey ki amul kenn ku koy dindi lan nga xalaat lan nga gisee loolu xalif bi moom la saa yu génnee gën loolu la ñuy wax moo tax ma ni la koo xam ni heure boo génnee ku bëgg lu baax commentaire ci say wax lu baax kon am na ñeneen ñooy waxal ñu dul waa fii. Mm-hmm. déggoo ma de. koo xam ni heure boo génnee wax ku bëgg lu baax commentaire ci say wax lu baax Ousseynou am na ñooy waxal ñu dul waa fii. Mm-hmm. xoolal Cheikh Al Hadj euh, Serigne Babacar Sy Mansour xoolal li lay wan ni moom fédérateur la. Mm-hmm. yaakaar naa noonu lañ koy waxee. mooy kuy boole. fédérateur la. xoolal kàddu yi mu wax ci sëñ Muntaqa waaw xoolal kàddu mbaax yi mu wax ci sëñ Muntaqa mm-hmm. moo tax ci ngay xamee ne rek ñu sew ñu ñoo dese yu sew yi waaw xaj Malick ñu sew ñu ñoo dese yu sew yi <coughs> waaye am na ñoo xam ni xamante woon nañ bërki dem xoolal kàddu leer yi mu wax mm-hmm. xoolal kàddu yu tedd yi mu wax ci Cheikh Seyd eh, Cheikh Seyd Mouhamadul Muntaqa Mbacke ah xoolal Cheikh Mouhamadul Muntaqa kàddu yu mbaax yi mu ko delloo ñooñu ñoo mën a suñu jamono bii sëriñ Babacar Sy Mansour nag nitu yàlla la yàlla pire mooy sëriñ Babacar Sy Mansour nekk nitu yàlla nag bo nitu yàlla boo ko xasee nekk dootoo faale ku lay jox milliard dootoo faale ku lay jox ay oto dootoo faale ku lay jox ay villa dootoo faale ku lay jëndal billet ngay tukki di la teg ci ay hôtel yu luxe non lépp yàlla lay doon mm-hmm. xayaatihi wa xarakaatihi lépp yàlla lay doon sa dund yàlla lay doon sa yëngatu da ngay dem ba saf borom bi subhanahu wa taala sàpp ba da ngay rus a wax loo xam ne nit dina ko dégg di taf gémmiñam mm-hmm. bi ci des mooy Serigne Babacar Sy Mansour li mu maanaam dëggu gi dëggu gi kat génnul qaala allaahu qaala rasul te yàlla dëgg la loo wax loo dégg ñu ko wax huwa alxaq huwa allah kuy wax qaala allahu qaala rasul yàlla ngay nettali waxi yàlla nag doo ci leble doo ci fayeeku doo ci fay bor ajaay na <laughs> loolu am na solo ñu dugg nag ci biir gàmmu gàmmu nu nekk loo xam ne euh, tijaan ñëpp a ko fonk bu jubee rek burdu bi la ñuy commencé ñëpp di xabtalu di tagg yonant bi di di màggal seyduna muhammad salallahu alayhi wa sallam alors mën nga ñu indi un ci gàmmu gàmmu tijaan dëgg nan la war a gàmmoo ba ba ba xëy na tegu ci yoon waa xam nga Seydi Hadj Malick suñu référence nga baal ma nag man Cheikh Hadj Malick mooy suñu référence. Eh, te itam ku ne ka nga xam moom ngay mën a jël ci moom ay référence El Hadj Malick sa turandoo dafa wax ni ala azimu laylan nañ ko wax benn yoon. ala azimu laylan waxaat leen ko benn yoon Malick sunu loolu kon Cheikh Alhaj Malick ubbil na buntu tiijaan ak kudul tiijaan nanu àndandoo ala kaay leen ala eey eh, ala Cheikh Habib sama sëriñ mhm. mooy wax ni xarfu tanbih la ala eh! ku nekk ca kaw tali ba mm-hmm. nga yéeg ci sa kaw balcon fekk juróom-ñeenti nit ñuy dox ci kaw tali kenn ku nekk soxla nga ko nga ne leen eh eh ñoom ñëpp ñu taxaw mm-hmm. nga ne azimu màggal leen wala eh, yow sa woote gii nga ne nu kaay leen màggal lu nuy màggal mu ni lay wilaadati xisbatan guddik judduk yeneen bi alayhi salaatu wasalaam nanu ko màggal waaye nag ci charte ida lam yakun naxwal xaraam yaudul bu ñu naree jeng de maanaam nde maanaam feek maanaam buñ ci jeng rek jëm ci lu xaraam kon nit yi daan war a gàmm du togg ay du togg ay añ jox ko mbaayee ni ñu lekk du jël du diri sa valise dajale say or takk dajale say sañse doonte baax na waaye nag li ëpp ci li gàmm li ëpp ci li soxla ci gàmmu ajaay da mooy jàng alquran jàpp ba sell boo dee jigéen nga muur sa bopp toog sa biir sa say jaboot ngeen jàng alquran jàng ay kaamilu alquran boo jàngee ay kaamilu alquran def ay dog def ay yaa salaamu def ay yaa latifu def ay yaa razaaku def ay yaa muinu def ay yaa fattaaxu tudd tudd sa bàkk borom bi subhaanahu wa taala boo ci pare nga julli ci sayidina muhammad def ay salaatu ala nabi def ay salaat al fatixi ah julli ci yenent bi ndax sama Cheikh Alhaaj Malick sama référence waxoon na ko wax leen ko benn yoon taadimuhu waltisaasun إلهي وجزينا أبدا عنا محمدا المعتار في القدم ajaayda mhm. suñu référence bi jàmbaar ji Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu anhu mi raw ci nitu yàlla yi mu jamonoon teel yépp mhm. nee na bokk na ci mandargay sopp yonent bi alayhi salaam mooy taadimuhu di ko màggal waltisaazun ak bu ñu koy tudd ngay yëngatu alaaj maa rek bu ñuy tudd yenent bi ngay yëngatu xiina tazkuruhu ci jamono bañ koy tudd bokk na ci màndarga yenent bi nga koy màggal ak di jaayu ci ak di jaayu di bég bu ñu koy tudd ngay yëngatu ngay def iltizaaz nga yëngatu bokk na ci màndargay sopp Seydina Muhammad mooy da ngay bëgg alquran xubbul quraan yi bokk na ci mandargay cheikh Seydi El Hadji Malick euh, Seydina Mouhamed cofeel gi nga am ci moom Tidiane mooy xubbu asxaabin lahu karami mooy da ngay bëgg saxaabaam yu tedd yi. kon booy waxtaan boo wootee gàmm yi gàmm guddi yonent bi ajaay da nga war a da nga war a da nga war a wane nii damay wane damay jàng yonent bi. mooy ca kaamil ya ca alquran ja ca salaatu ala nabiya ca istighfar ya parce que nag yàlla amul ku dul Seydina yàlla amul ku dul ala bi yàlla amul ku dul Seydina Muhammad yàlla bu doon ku ñuy nax la balaa ñu may commentaire waxuma ni yàlla dañ koy nax nag yàlla bu doon ku ñuy nax la bu doon jëmm ju ñuy nax la jamono bii ñu toll ku ko nax ci Seydina Muhammad mu nangu amul ku dul rasulullahi kon loo bëgg ci yàlla jaare ko ci Seydina Muhammad mu am parce que fa anta baabullahi ay umriin ataahu min gayrika laa yadxulu loo bëgg ci yonent bi boo loo bëgg ci yàlla boo ko jaaree ci yonent bi am ko kon ca salaatu ala nabi ya ca istixfaar ya ca julli ca ca alquran ja ca saraxee ca bàyyi xel ni woo célébré woo lu dul màggal guddig juddu Seydina Muhammad soxna Aida Kane mhm. alors euh, ma di gisaat tamit beneen vidéo boo xam ne dañuy wax ne Seydi Hadj Malick am na cër gu bëgg na yonent bi ba kenn ëppalewu ko ci dara waaw waaw dafa bëgg yonent bi ba kenn ëppalewu ko ci dara ba ci tarixa bi bokk na ci noo xam ne ñooy gën a tudd yàlla ak yonent bi nan nga gisee loolu tamit. ci loolu moom xam nga ni seen xaaj may da doon dem màkk ba mu demee màkk dafa doon des. Mhm. dafa doon toog ngir dëkk ak yonent bi ni man daal cofeel gi ma am ci Seydina Muhammad li may doy mooy toog dëkk ak yonent bi dafa jékki-jékki rek am ko ko fu fekk noo tudd man Malick foo dëkk Sénégal looy def fii damaa def sama farata pare bëgg fee dëkk ak dëkk ak sama waa ji mu ne ko réew ma nga nekk te dëkk fa te war faa dellu lëndëm na am na côté bu lëndëm boo xam ni boo delluwul du leer te ngaa dellu loolu moo delloo Cheikh Hadj Malick Sénégal waaye cofeelam ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam loolu kenn laam-laamewu ko waaw loolu kenn laam-laamewu ko ba lu njëkk muy dem muy dem ci yonent bi saa sallam dafa waroon wax ni ah, maa ngi jooy damaa jooy ba suma bët yi deseetu ronkoñ ngir bëgg a ziyaara ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam yuusufa jooy ya ma doon jooy yanquba ba ronqañ a jeex ba bët yëpp mujj muuru man Cheikh El Hadj Malick maa ko raw ngir bëgg a dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah sama dund dootul neex ci stress laay dëkk feek déw ma ziyaara ji Seydina Muhammad man Seydi El Hadj Malick fa kayfa yutibu al umru in dumtu haahuna wahana alladi law laaw daa sabilu ni julli yi may julli baax na de weeru koor jot ma woor baax na de natt azaka baax na parce que yàlla yàllaa ko digle waaye ëllëg yowmal qiyam yaakaaruma ci yooyu ma doon def dara lu dul sopp sayyidina Muhammad walaysa li amalun alqaaka yaa amali siwal mahabbati wa taadimi wa salami chal xaaj ma leen ndar keppal ñu sayyidina Muhammad bàyyi ñëpp bàyyi fépp bàyyi lépp dëgmal sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam ni yowmal qiyam amul lenn lu ma préparé pour offrir ko cadeau yéen sunu borom subhanahu wa taala lu dul sopp yonent bi aadabtu xubba rasulillahi mahsharati li kay yu laaqiya nii fii awali dalami Cheikh Hadj Malick bi muy woote gàmmu soxna Aida mhm. bu woote woon jëmale ñu ci boppam ñun ñëpp ñu fëx dem ci boppam parce que ragal yàlla may na ko ko mhm. maandoom mayoon na ko ko sàmmoom mayoon na ko ko dëddu àddinaam mayoon na ko ko goreem mayoon na ko ko bañ a dunde alale taalibe yi di dunde ñaqam mayoon na ko ko bàyyee nit ñi li ñu yor boole li bàyyee nit ñi li ñu yor bokk ak ñoom li mu yor mayoon na ko ko waaye cafeelam ci Seydina Muhammad moo moo tax alaaj maa ngi ni mboolem teraanga bu ma yàlla mën a defal mboolem succès bu ma yàlla mën a defal du woote sama lenn mbaa sama fenn mbaa sama daray bopp damay jël lépp jël sama ñëpp jël sama fépp ànd leen jóor leen kala ñu daw kalaamitu ji ci kanamu Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam cofeel foofu la mën a yem adaay na mhm. euh, Seydi Hadji Malick kuy wax ci moom di wax modestie di nga wax ku wàccee boppam mhm. ku humble photo mi sax da koy xëy na ba mu doon dund nit ku wàccee woon boppam la mm. te xam-xam la am xam-xamam kenn dootu ko naatable mm. euh, ba day reflété ci taalibe Tijaan boo gis dangay xam ne wàcce na boppam am na am na benn yar bu mu bu ànd ak loolu tamit nga waxal ñu ci un loolu mm-hmm. tarbiya bi taalibe Seyd Ahmed Tijaan yi am sëñ Babacar moo la ko wax moo ni Cheikh Sir Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu ñaari tarbiya lay def Ousseynou wax benn bi himmatin aw bi xaalin bi himmatin aw bi xaalin xaada tarbiyatan ni'mal murabbi waxandoo leen ko rek ribul xaq yarda mamala عند الباب يعلم إلا أنت من من بيسنا بهمة الأوبي قولنا لنكم بنيون حال حذتر واو بيتا واو نعم المربي واو ريب الحق يرضاه بهمة أو بحال Cheikh Hadj Malick nee na sëñ Babacar nee na Adja Aida waaw taalibe Tiijaan yar ak teggin ak dal ak teey moom la leen Cheikh Seydi Ahmed Tiijaan yi nandal moom la leen yaree mhm. bi ci des wax nga léegi ni xam-xam taalibe Tiijaan wax nga ni foo ko gis da xam ni kii xam-xam mooy Cheikh Hadj Malick xam-xam moo ko ñoroon mhm. waaw moo ko ñoroon mos na wax ni lu yàlla wax wax naa leen ko ngeen dégg ma jëfe ko ngeen gis ma bind bàyyi fi lu Seydina Muhammad jàngale ma wax ko ngeen dégg ma jëfe ko ngeen gis ma bind bàyyi fi wax ni ey yéen ndawi jamono yi ala ya bani hada zamani daawtukum li ixyaai dinin bil ulumi ajibu na ngeen àndandoo ñu dundal diine yéen ndawi jamono kaay leen àndandoo man ñu dundal diine Cheikh Hadj Malick luy dundal diine jasneer mu ni déedéet maa laaj maa luy dindal diine ay kër yu rafet mu ni déedéet soxna yu rafet mu ni déedéet di woote jëmale ci sa bopp déedéet nekk ci réew di saaga sunu mag ñu baax ni parce que dafa xew. dinaa ci ñëw. Ah, di loolu moo xew nga ni déedéet lu ñu dina la diine mu ni bilaw loo mi ci xam-xam nanu àndandoo jàngiwaat daal ni ala kulli matbuin dilalatu taabiin lima huwa ajla laa li bil ataa képp ku am ñoo jiite. ñu topp ci sa ginnaaw am nga responsabilité jàngal leen am nga responsabilité teg leen ci yoon am nga responsabilité bàyyiloo leen xel sa bopp am nga responsabilité bàyyiloo leen xel seen diine Cheikh El Hadj Malick ni waaw wa taalimuhum jàngal ñi la jiite farata piir la walaw bi ijaaratin di soññ say say say njaboot mbaa say taalibe dem leen ngeen xam kanay Seydina Muhammad dem leen ngeen xam kanay yàlla caaxaan yi ngeen nekk jaru ko yàllaa fi ne yonente fi ne mag ñi ñoom lañ doon liggéeyal jàngi leen diine alaaj maa ngi nee loolu nga wax ko say njaboot fardul farata la walaw bi ijaaratin donte da nga am complexe wax ko dangaa war a fay ay nit ñu ñëw waxal la ko jàngala la say njaboot lanay diine jàngala la say njaboot kanay yàlla alaaj maa ngi boo ko deful boo ko deful boo ko deful wa illa alayka al ismu yow ma yawma yi boo ko deful bàkkaar bu rëy bu toll ni gàmmook màggal gàlloon na ci sa loos bis bi ngay dajeek sa borom subhanahu wa taala aja ayda <laughs> alors euh, foofu noonu lay duggee sax ci relation Sidi Hadj Malick ak yeneen kilifa diine yi bu ma ciy jël nag ma ciy jël sëñ Touba ba tey dafay àgg ba ci xalif général des Tidianes sëñ Babacar Sy Mansour mm. ak sëñ Mountakha mu rafet mm. mais teewul ci réseaux sociaux yi ñun xale yi dañuy xëcc ku ne day xëcc sa boor dem ba ay kàddu yu tegginewul di dem ci ay kilifa lan nga gisee loolu tamit phénomène boobu. si si TikTok bi nag. <laughs> xam nga soxna Aida. Mhm. dafa am ñoo xam ni bu leen lislaam boolewul woon it ak bokk boole na leen. Mhm. waaw leen lislaam boolewul woon ak bokk boole na leen te yow bari man-man ak sob xanaa bi ma lay xam ak léegi. sopp waru laa duggal ci duggum dugg ci mbokku jàmbur. Hmm? Mhm. waaw nitu yàlla yi nag fi mu toll nii ñu toll. Mhm. tolluñu ci jamono ñu def leen jaas yi di leen xeexee. Mhm. fii ñu toll nii tey maam borom Touba wax nañ ni bind na sept tonnes cinq am na ku ko wax. te ñu ëpp ci ñu koy wax boo leen laajoon sept tonnes cinq yi am na ci xasida yoo xam duñ ko man nañ ko jàngi. maam Sidi Xaaj Malik bind na bind na loo xam ni ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam kenn bind ko mooy xilaas zahab ñi nekk fii di defee di di di dina ci TikTok bi di bind aka eh, aka message aka commentaire boo leen waxoon luy min ko lu wasun xamuñu ko nanu ko jàngi te bàyyi mag ñi waaw te bàyyi mag ñi parce que maam borom tubaa bi bi ko maam Sidi Xaaj maa naan hadiyatun mujibu tilaabu mahabbatan yaa ayyuhal xubaabu loolu ba ba ñu koy waxante ñoom ñaar maam borom Touba nan ko jaza jaza xaw ma jaza jazaahu xaw ma xaw xayra jazal wahaabu loolu maam borom Touba wax ko maam Seydi Hadji maa ñoom ñaar kenn ku ci nekk wax ko ba nu koy wax ñoom ñaar fa nu tolloon di ko wax ñun tolluñu fa woon. Mm-hmm. nit nag boo nekkee ci am réew te waxook ñu bari am koo xam ni am na ku mu waxaloon bu waxee da nga koy déglu ñun sunu mag ñi la ñu am. suñu mag ñi ci réew mi lañu am ndax li nu mënaan mënaluñ ko suñu bopp xoola seen xaaji Malick bàyyi lépp dëgg dëgmal rasulullahi xoola man borom Touba tukkeem bi mu tukki dem ci géej gi soxna Ayda xoolal li ko ci waroon a fekk xoola conséquences yi mu ci yi mu ci def ah waaye bàyyi lépp ni man daal li ma bëgg mooy sama xeet jëriñu ah ah irham jami al wara xoola Cheikh Hadji maalik ak maam borom Touba ñoom ñaar dañoo baax ba nduroo mbind mm-hmm. Sidi Hadj Malick dafa jékki-jékki rek daal di ixfir li ummatihi warham bi ummatihi wastur laha wajburanha rabbi yallaahu man borom tubaani yaa malikal mulki yaa man jalla an qawadin irham jami al wara yaa hadiyan ardaa ñaar ñi li nu fi nekkee woon mooy fexe ba ñoom décentraliser diine moo leen ñoroon cakat ñoom coow li nekk fi ñu ñoo ci ne rek waaye ñoom kenn ku ci nekk fa nga nekk fa nga nekk di dundal la nga yor di sàq minaasil xaq bil xaq boo gisee sa mbokk jox ko cër akolaat ko xam ni yéen ñaar yéen a bokk diine ji loolu moo fi amoon bu njëkk kat li fi des ñu sew ñi la te ñu sew ñi ñoo desee ñu sew ñoo dese yu sew yi kat soxna Aida <laughs> dëgg la dëgg la alors ñu ñëw tamit euh, ci ci ci way yi ñu gis euh, ci jàngkat yi ci way yi ci lépp bu nekkee tijaan day mën a wax tarixa yëpp maanaam saam tey buñ ko waxoon mu woyal ñu benn xasida sëñ Touba wala mu woyal ñu benn woy dina ko mën dina ko def ouverture boobu Tidiane am nga xam ne fu ñu ko laal rek fu mu dem bokk lan moo koy def da ngeen di gëstu téere yëpp wala bokk euh, nan lay demee. waa xam nga wax naa la ni euh, yonent sa saa sallam moo ne ilmu kulli shay'in afdalu min jahliha xam lépp moo gën réere ko rek pour pour pour pour maîtriser pour rek résumer li ma la wax mhm. te wax naa la léegi nii la démb wax naa ni ñun boo ñu séenee ñuy ñëw looy wax tagkat yonent bi yaa nga ne waaw kay lu tax waxoo tagkat sëñ Tuubaa yaa nga ne parce que tagguñu sëñ Tuubaa mhm. lu tax waxoo taggkatu Seydi Hadj Malick yaa nga ne mhm. parce que tagguñu Seydi Hadj Malick mhm. ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ci ñoom li nga def ci réew rek lañ lay waxal mais kenn sosalu fi kenn ay mbir aman bokk Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu ñun duñu ko waxal dara loo xam ni dañ koo bëgg a duufalal parce que bu ñu ko naroon def suñu kilifa yi musuñu leen gis ñu def ko Pape Sëñ Mbaye Mansour toog na fii woote ci tele njabootam di waxtaane Alaaji Malick mu ne maa ngi doon seetaan ba mu jeex lenn rek laa doon déglu mooy ñu waxal alaaj Malick lu dul dëgg ba mu dugg ci émission bi démentir ko kon Cheikh El kenn sosalu ko lu bon maanaam kenn sosalu ko lu baax mhm. dafa toqam dafa judd ci mbaax nàmp mbaax toqanti ko ci mbaax di dox doxinu mbaax di wax waxinu ku baax di jëf jëfinu ku baax ba mbaax gàllandi ba réew mi koo tudd El Hadj Malick mu ni ku baax la loolu waral mu jur ku ñuy wax da baax mhm. jur gi mu jur ku ñuy wax da baax loolu mbaax a ko waral mbaax googu nag kenn sosalu ko Cheikh El Hadj moo ko liggéey fi mu ne nii waxaluñ alaaj maalik dara li mu def lañu wax mooy comme nag alaaj maalik nabiyee la alaaj maalik kat tàggkat yonent bi la mhm. Seydi Hajji Maalik tàggkat yonent bi la maam Cheikh il Qadim tàggkat bi la kon ñun nettali ay nettalikati waxi jàmbur lañ soxna Ayda mhm. ku wax ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam maam borom Touba muy Seydi Hajji Maalik muy Paul Marty bu nu ko jàngee yëg ni kii li mu wax Seydina Muhammad la ko wax mhm. ñun daanu jël loolu wan ko soppe yi ba ñu xam ni sunu mag ñi ki leen yoroon mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu kan moo ñu ci dugal tekat Cheikh Alhaji Abdoul Aziz baax daan na woolu góor gi Ablaye Niang Alhaji Abdou moom dafa baax Cheikh Alhaji Abdoul Aziz mbaa xam amul ci mim réew daan na woolu góor gi ab Ablaye Niang jëpp yóbbu ko Jaksaaw mbaa Tiwaawan mbaa Aynumaa di muy jàng Jazbul Qulub bu maam borom Tuubaa ba gudd jot mu teral ko dugalaat ko ci oto yóbbu ko Ndar loolu alajab def moo nu jàngal ni lu nit wax ci tagg lu nit wax jëmale ko ci yonent bi boo ko fekk boo demee ci jataay na ko wax ndax ñàkkul koo xam ni maam borom Touba lay béggee soxna Ayda mi ngi ci jataayu Tiijaan yi ñàkkul koo xam ne Seydi Hadji Maalik lay béggee te mi ngi ci jataayu Murid yi béggal leen ci lan wax ci yonent bi soxna Ayda boo ca paree wax sa waxi bopp la des fois sax ñu ñu tooñ leen tamit nag de euh, ne ne Tiijaan yi jasneer fu mu rafetee ñu sol ko Tiijaan yi parfum yi fu mu rafet fu mun xeeñee neex ñu sol ko ñoom daal vendredi ak yeneen jour yëpp dañuy bëgg sañse dañoo bëgg solu xam nga tiijaan yi lu ñu am ci yëre lañ koy def lan nga gisee loolu mokkër yi boobu ay tooñ la xëy na ñu ñuy sàndi waaye mhm. boo ma fekkoon mag kan laa gën a sonal fii libaas ci jataay jataayu diine nga war ñoo jël interview libaas mu bu soloon kelut ak si vêtement ma sol sama garam bii taxaw fii kan nga jël <laughs> yow laa jël maa koy jël wax ma bu nee ma yow ngay jël. yow zinatakum xudu zinatakum inda kulli booy dem ci jàkka di dem ci jumaa di sàq mi naa sa xaq bi xaq di wax laa ilaha illallah da ngay sañse te tijaani ci jumaa lañ dëkk. Mm-hmm. ci jumaa yi lañ dëkk ñoom li aswaatihim fi kulli yawmin wa laylatin dawiyun la daa kulli zawaya wa masjidi ci jàkk yi lañ dëkk bu la Macky sàll invité woon léegi léegi léegi léegi léegi nii li nga gën a fonk ci sa yére ngay sol alaaj Malick oto bi nga boo amul oto bu rafet di nga dem ci parking luye oto bi bi dàq ci oto ya ca parking ba ndax Macky sàll moo lay seet si boo amee yàlla juróomi rendez-vous ci bis bi booy dem bis bu jot war maanaam rendez-vous bu jot war ngaa xool lu gën a rafet la nga soloon ba ngay dem ci rendez-vous bee sañse ko te yi yàlla la ñuy amal rendez-vous fajar ñu naa seel xaqi timis ñu xaqi bil xaqi xadara ñu allah allah xëy la la loolu ko koy def mënul ànd ak ñàkk sañ ca ay laaj xanaa la ñu jàll ci way yi nag façon way léegi ñu bëri dañuy déplorer kenn day way dara ñu ne ko non non war a koon defee nii façon way yu jeunes yi jël di di jël euh, xasida yeeg xaw ma xasida yeeg euh, way Seydi Hadji li mu bind lépp ñu koy wayee ak seen façon indi si ay folklore un lan nga si lan nga ko gisee waaw xam nga Euh, dafa am koo xam ni maanaam euh, euh, suñu way way way yi gaa yi di way mhm. neex na de ah, trop waaye mhm. kilifa yi koy waxtaane ngir ñu wàññi ko lenn rek moo leen ci jublu lenn rek lañ ci jublu mooy defar mhm. mooy defar parce que tey bu nit defee leneen loo xam ni mën nañ koo déglu keneen mën na koo jël xaw ko changé xaw ko soppi kilifa yi defar moo leen tax a jóg xale yi nga xam ne ñoo jël référence su maanaam ñoo jël jamono bii ñu toll ñoo jël style boobu leen rek lañ ci jublu mooy fexe ba ndaw ñu ñu jamonoon teel di dund yenent bi ba sàkk ba ba salaat fatiha saf seen yaram buñ koy bàyyi sax duñ ko tey parce que folklore kenn mën cee dëkk nag mm-hmm. waaw folklore kenn mën cee dëkk waaye nag bu ñu tolloo ci jamono boobu soxna Aida kilifa yi nañu xam ne ñun seen i seeni seen njaboot lañ waaye ñun njaboot yi nañu xam ne kilifa yi suñuy kilifa lañ mhm. loolu rek la waaw loolu rek la dëgg la alors ñu ñëwaat tamit ci koo xam ne moom mënuñu fi ñëw te waxuñu ci ay waxam mooy sëñ Abdou Aziz Al Amin yow benn way boo xam ne Sam da ko way ñëpp toppaat ci ba tey way bi am na ñoo xam ne dañ koy clip ah, ñu bëri dañuy dañuy indiwaat way boobu noonu duñ mës mm. a fay mm. ñaan Sam mooy nit koo xam ne waykat boo xam ne euh, comme Youssou Ndour actualité lay def chaque jour saa yu génnee tamit nit ñi dañ koy dañ koy déglu. Mm. nit ki dañ mooy nit koo xam ne daal waykat yi ñu gën a fonk ci la bokk. Mm. donc way boobu noonu si daal su ma la doon wax ka wax ñu un peu ci Serigne Abdou Aziz Al Amine. xam nga yow rek mën nga def ci Serigne mën nga def thème ci Serigne Abdou Aziz Al Amine. Mm-hmm. waaw mën nga def thème ci Serigne Abdou Aziz Al Amine ndax Serigne Abdou moom nit la woon koo xam ni li mu nekkee woon ci dëkk bi ñëpp xam nañ ko mooy mbaax. ak yiw ak nitu yàlla sëñ Abdou xaj Malick sa sëriñ sëñ Abdou Aziz Al Amin yëg nga ni musul bokk ak jigéen oto ba ci soxnaam waaw xam nañ naan bul jox loxo jigéen mbaa bul sëñ Abdou musul bokk ak doomam ji mu jur wala soxnaam bu jigéen oto yéen a ngi may seetaan mm-hmm. bu dul dëgg mën nañ commentaire boo waree tukki ànd ak ay njabootam yu jigéen da leen di jëlal oto mhm. da di jëlal oto pour wax la rek jikko yi nekk ci ñëpp buy tukki ànd ak njabootam may nan la nga ànd ak sa doom bu jigéen parce que yaa ko jur sa soxna sa soxna la waaye comme yo borom bi subhanahu wa taala yàlla yonent bi maanaam jigéen euh, jox loxo góor ak jigéen xaraamal nanu ko sëñ Abdou moom nee na xàmmewu ci gan gi ak kii ma dëkkal duma ci bokk ak kenn du jox kenn loxo du ma yem ci ñàkk jox kenn loxo waaye duma ma bokk kenn oto mais oto privé la yaa ko moom mën nga ci dugal sa doom mën nga ci sa ñab du dugal oto du musul dugal jigéen ci oto am buy dem da leen jox oto ngir sàmm ngir yiw ngir dal njabootam gii kenn dëkku ci fi sa ñab du dëkk fa mu dëkk ay ay taa njabootu jàmbur ñoo fa dëkk kenn ku ci nekk yaa ngay feneen mais fa nga dëkk yemale woon njabootam ak njabootu jàmbur moo tax bu ko njabootam doon seet si njabootu jàmbur di ko seet si na njabootu jàmbur ja di range noonu la njabootam di range mm-hmm. ngir yiw ngir baax daan defendre nekkoon moom tam fédérateur daan mm-hmm. boole mm-hmm. daan dajale këru diine ji waaye nag attention bàyyam Serigne Babacar moo doon wax tariqa bi ak diine jëkk kër gi ku leen dut baaraam ma dut la baaraam Serigne du dundam yépp ci lool la ko def ku laal tariqa bi Serigne Abdou la laal la ku laal diine ji mu dal sa kaw ku laal kër Seydi Hadji Malick Serigne Abdou dal sa kaw kooku moo nekkoon Serigne Abdoul Aziz Al Amin ci sàmmoom ci ragal yàllaam ci modestam ci buggoon taalibe yi ci dëddu woon àddina waaye ci buggoon nag maamam Seydi Hadji malik ajaay rakan xanaa nga may ñu ci rek wayat way bi leeru gàmmu jooy na la tinkwas ki jooy na la tabaski jooy na la ziyaara shura jooy al amin ca tiwaawan leeru gàmmu jooy na la tabaski jooy Abbas ki jooy naan alamin teewti waa def ni weeru gàmmu jooy naan la tabaski jooy naan la baal

jooy na la baay al amin ca Tiwaawan weeru gàmmu jooy tabaski jooy na la def leen ni ma way ziara suray Tiwaawan al amin darñel burdu jooy noppalu jooy na la la baay al amin cetti waaw weeru gàmmu jooy na la tabaski jooy na la tabaski jooy na la yaa suraay jooy rabaraan cetti waaw saana feeñ suñ xel yi dem. suñ xel yi dem ci yow. naan weeru gàmmu jooy na la tabaski jooy na la tabaski jooy na la baay yaa suraay jooy général beti waan ay ba ëttu këri diine ji ku ci sañoon am ku mel ni sëñ am ku mel ni sëñ Babacar señu la tànnal amiin ca Tiwaawan ëttu kër yi diine gi ku ci sañoon am ku mel ni yow am ku mel ni yow Babacar señu la tànnal général ca Tiwaawan jooy nañu la jooyokal tey ma xaatu wax ko ca kaw ai đến ngày ngày nước phải lỡ ai đến học kêu ba quan joy nắng lỡ joy còn kêu ba ba kêu ba có cha cao khalil general ban jibina general kêu ba musadem gijarna kala magilai joy ba mala ningayor jëlaat ci Sénégal ba Tiwaawan sa dem gi jar naa maa ngi lay jooy ba ma laal yoroon dee su ko jëlaat ci Sénégal ba Tiwaawan Euh, Sam am na beneen tamit euh, way boo xam ne temps yi tali defe naa taalibe yëpp moom moo leen ni daaneel mën naa ko wax <laughs> xilaas xelaas bi daal dafa mel ni euh, Abdou Aziz Mbaye moo ko indiwaat nii di ko wayaat nii mais dafa doy waar mën nga ñu expliquer way bi lu muy wax. xilaas. maa ngi koy nuyu Abdou Aziz Mbaye. Mm-hmm. sunu mag la sunu sëriñ la. moom oto bi gaar jigéen ma gaari na war a def ay way ba mu fees bi mu ñëwee Tiwaawan rek daa dëpp wuti kër Abdou mbay jox ko ba mu doyal mu séddale ñi li des moom maa ko tuddee amiru shuara le di xawma des chanteurs waaw moom maa ko tuddee mooy jànkat yi mooy seen buur mooy seen kilifa ndax Cheikh Al Hadj moo ko defar Abdou Mbaye bëggewul yàkkamtewul sooful latewul demul fenn ba nu jéppi ko borom xilaas bi wax naa ko ni ko Abdoul Aziz mu ne ma naam ma ko sa cofeet ci yent bi la la yàlla fa xilaas bi ku ne jéem na ko sottiwul xilaas ku ne jéem na ko sottiwul ku ne sonk na ko mais xilaas nag <laughs> du du jaal non non xilaas roi des arènes la waaw xilaas roi des arènes la xilaas roi des arènes la roi des arènes nag kuy waaj a nekk roi des chanteurs dong ko mën a nekk roi des arènes mooy xilaas ñu mbër yëpp song ko kenn daanul roi des chanteurs ñëw jël kaamil bi way fukki way way weeri bunt di junni bayit ak juróom fukki bayit ak juróom-ñaari bayit roi de chanteurs tagg ko Seydina Mouhamed Abdoul Aziz Mbaye <laughs> ci ndigalu Serigne Babacar Sy Mansour xalifa bi ak njabootu Seydil Hadj Malick gi xilaas nag boo ko bëggee xam mooy yonent bi alaaj ah, malik moo ñu fotol Seydina Muhammad tegal nu xool jikko yi nekk ci rasul lépp nan lañ koy waxee eh, li am am na loo am hôpital lu ñuy defal nit ñi pour xool sa jëmm yépp scanner Cheikh El Hadj Malick scanner la yor tuyaawoon dugal ci Seydina Muhammad scanner ko lu nekk ci biir jëmm rasulullahi alaaj Malick génn ko bindal ñu ko ci kayit gi muy xilaas zahab alaaj Malick scanner dañoo scanneral rasulullahi ay da loolu mooy xilaas xilaasu zahab mooy wurus wu sell wi waaw xilaasu zahab wurus wi fii siirati xayril arab mooy li gën a sell ci sayidina Muhammad ci njàngaleem alaaj Malick jëlal nañu ko tegal nu ko ci téere bi ku jàng xam yonent bi ya man ata bi xilalil waai xinduran xajji tama yujibu يجيب سودان والغوار يا من أتى بخلاف الفائح درارا عجيت ما يجيب سودان والغوار son Aida Ousseynou daf ma interromp fi doge nag baax na gis nga ngay daw ci mbedd mi naaj bu tàng mhm. ci àll bu amul garab amul ker mu tombeek jamono jamonoy avril mbaa juin day waaja taw nekk ci diggante di taw ak di waaj a day fekk ndaa mu tàng lool ki nga ki la gëstu ki nga ki la wokk nga gestu mu jox la kaasu jus bu sedd kooku yàlla lay doon ci yow Ousseynou noonu la ma def li wax nii Serigne Babacar Sy moo ko wax baayam daf ni baay xilaas bi Sam doon waxtaane léegi ni mooy roi des arènes Abdou Aziz Mbaye mi ko jàng mooy roi des chanteurs Alaaji Malick Serigne Babacar ni yaa man ataa bi xilaas yow dafay indil nga ñu loo xam ni faiqan duraran lu kawe la indil nga ñu téere boo xam ni kawe na riche na tedd na foor na xat jikta dikke dikk na téere bi ñëw na maa yujibu suudaana di yéem bi mu téere bi ñëwee dafa yéem suudaan mooy ñu weex ni wal xuraraa ak nit ñu ñuul téere bi dafa yéem ñëpp si loolu la sëñ Babacar wax ni ko bàyyi sa téere bi wa kullu fannin lisaanil xaali qaala lakum alqilasa talqa min taysiri ma asura bi ngay taalif téere yi dafa am ay façon matière yoo xam ni ñoom la ñuy taalife téere mooy mantiq arut usul bayaan ak ya ca aju benn bu ci nekk lu ci alaaj Malik war a utiliser day ñëw ci alaaj Malik ni ko alqilasa sànni ma ñëw ñëwul ñëwul tudduma mu wax téere bi xam-xam kese la waaw ni ko nag bàyyi wa baxru ilmika yakfi naasa saaxilahu siyaani fii qaribun baidun chamara yow de bàyyi sa géeju xam-xam gi coow li coow li xilaas ak tey sii rek fala buddaak astawdiullah tey laa lay wax téere yi alaaj Malick taalif ni mu baree ni mu mel Cheikh Alhaaj Malick soxna Ayda téere yooyu yëpp alaaj sëñ Babacar nee na li mu bind ñun ñu koy jéem a xuus di ko liir géeju Cheikh Alhaaj Malick tefes gi kat ci lan yem alaaj Malick sa turandoo géeju xam-xamam gi tefes gi rek ci lañ yem booy ñëw di jamaa ci géej libaas yem ci tefes gi yam ci dugg yéeg àggagoo ci biir nuuragoo yam ci or ak xaalis ak jama ak wurus jaratul ngay dem ci biir géej gi dañoo dugg ci tefesu géeju alaaj mari rek yam ci wurus bi yam ci jamaa bi yam ci yam ci or beeg ya ca aju kenn duggul ci biir géej gi tefes gi rek ci lañ yem yëg fii naasa saaxilahu waaw tefes gi yëg fii day doy an naasa nit ñëpp ñu koy xuus waaw ah, Cheikh El Hadj mu ni ko léegi nag El Hadj Malick moo taalif xilaas ndar képp ci yonent bi lu njëkk yonent bi di juddu bi yonent bi nekkee leer leer gi rek Cheikh El Hadj Malick fexe na ba scanner leer gi wax ñu ko wa innahu id arada allahu nashatana alamin géej ya mu jaar Cheikh El Hadj Malick géej yi xuus mooy baxru rahmati baxru shafaati baxru karaamati ak ya aju alaaj Malick wax ñu ko kan mooy wuy juri Seydina Muhammad alaaj Malick ni ne Amina la tudd Aminatun bintu Wahbin ibni Abdi Manafin ibnu Zuhrata ummu Mustafa al alami ku am yaay di nga am papa dëgg la alaaj Malick kuy papa yonent bi mu ne Abdullahi Abdullahi Abdul Muttalib Abdul Muttalib Abdul Manaf Abdul Manaf Qusay Qusay Kilaab Kilaab Murrata Murrata Kaab Kaab Luway Luway Ghalib Ghalib Fihr Malik Nadar kinaanata xudaymata mudrikata ilyas mudar nizar maat adnaan ñu ne ko alaaj Malick yeneen bi ñaar fukki maam rek la am mu ni am na lu ko ëpp waaye Seydina Muhammad moo nu jàngal ni kuy lim samay maam ba yem ci adnaan na nga ca yam Cheikh Alhaaj Malick waa ku am maam yu góor kon am nga maam yu jigéen alaaj Malick bien sûr maamu jigéen yonent bi xam nga ko bi nga ko ci xilaas bi mu ne waaw bind ko ci xilaas bi yonent fokkun na fatimatun salma atika xobbe hind waxshiyatun bintu saybaan wa maawiya salma layla jandala aatika baratu bintu saad salma layla rababun sawdatun muanatun mahdadu ayil abiyata tartanimi walaaj malik yenent bi bi mu amee ñaata at la am soxna mu ne bi mu amee vingt cinq ans ki mu takk bi mu amee ñaata at mu ne quarante ans magee na ko quinze ans wa baada shahrayni fii dal aami summata xamsatin wa ashrina yowman duuna muttahami walaaj malik yenent bi demoon nag euh, am na ay xare mu ne waaw wii kaama haadihi yaa ji mubridan kabidan ala xilaafin ataana min zawil zawil qudumi waaye yenent bi alaaj Malick yenent bi ñi ma ñëpp ndax ñëpp wuy si nañ ko yaa alaaj Malick ni yenent bi bi ko yàlla ne wooteel dañu ko wóol ñi gën a fonk ku nangu bàjjene de d'accord nañ ku bañ abu lahab amatuhu bàjjene ne nañ ko xul na fatlub lil jamii wóol ñëpp waaye walaa tadu aba lahabin bul woo abu lahab ndax dafa soxor yàlla ni ko woon ñëpp abu lahab la mu wax yonent bi alaaj ma ne xam nga ko fekke naa jataay ba man xam naa li si abu lahab wax yonent bi ñu ne ko alaaj ma lu abu lahab wax yonent bi dani ko yow tos kare ñeel na la li nga doon doy lii rek tabbat laka alihada damatana abu lahab ni eh, eh, alaaj malik ni bi abu lahab waxee loolu yonent bi réaction bi Seydina Muhammad def man Seydil Xaaji Malik xam naa ko alaaj maa ñu ne ko nu mu def mu ne dafa sëgg parce que sa papa bu la xasee di nga am kersa waaye yàlla moo feral yonent bi ay ronkoñam ne ko siggil sa baay bu la saagaa doo fayu bàyyil ma bàyyil ma fayul la tabbat yadaa abi lahabin wa tabba maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasaba sayaslaa naaran zaata lahabi wa imra'atuhu hammaalatal xatabi fii jiidihaa hablun min masadi kan moo doon bëgg a toj kaaba ga kan moo doon bëgg a toj kaaba ga ndax tolloon nañ jamono ñu bëgg a toj kaaba gi ngir bañ kaaba gi ah xam naa ko demoon naa fekke naa jataay ba abraha la tudd daa nañ ko woowee ashram lu tax mu ne ashram dafa soxoroon dafa soofoon bakkan baa xar lu tax mu ni papa ja la tooñ papa ji dóor ko jaasi ca bakkan ba bakkan ba xar ay euh, na mafarru wal ilahu wal ilahu taalibu wal ashrabul maghrumu laysa al xaalibu abu euh, sidi xaaj maa ni xam naa ko la ko ca dal xam naa ko am na ay picc yu jige biir safara ñëw kenn ku ci nekk yor ay xeer xeer wa ñay wa ñay wa sax xam naa la parce que ñay wa abula euh, ñay wa abraha yoroon soxna ay Ayda bi ñu ko dëgmalee bu dëgmalee kaaba gi day wàññeeku waaye bu bu bu bëggee ñibbi day daw alaaj Malik nee xam naa yenent bi xam naa euh, lalu reposant bi si dina Muhammad daan tëdd lal ba chambre a coucher ba alaaj Malik nee na xam naa ko xam naa menuisier ba ko daaj ñaata alaaj maag yonent bi daan na peñe wu xam naa ñaata peñe xam naa ki ko doon téel peñe bi man Cheikh Hadji Malick mi ngi ci xilaas bi xam naa ki ko doon gàddul sijaadaam mi ngi ci sijaat mi ngi ci xilaas bi xam naa tàndarma ñaata tàndarma la daan lekk mi ngi ci xilaas bi ñaata weer la daan toog cin du tàkk këram mi ngi ci xilaas bi ñaata weer la daan toog euh, ñaata yoon la ko Jibril dikkal mi ngi ci xilaas bi ñaata fan la feebar mi ngi ci xilaas bi ban bis la faatu mi ngi ci xilaas bi ban bis la juddu mi ngi ci xilaas bi ban bis la gàddaay mi ngi ci xilaas bi ban bis la ñu indil julli juróom mi ngi ci xilaas bi ban bis la génn màkk mi ngi ci xilaas bi ban bis la dugg madina mi ngi ci xilaas bi ban bis la faatu mi ngi ci xilaas bi Cheikh El ndar képp lépp xilaas lépp Seydina Mohamed ci biir xilaas bi kon bu ko Abdou Mbaye wooyee mu def bës ci jamono jekk na ni bakkan ci xar kanam soxna Aida xilaas مصطفى وصليني يا إلهي وجزينا أبدا عنا محمدا المختار في القدم مصطفى وصليني يا إلهي وأن محمدا المختار في القيادة بشيرا وسليا يا إله واو وجزيا وأبدا واو أنا محمد مختار في نك سكر جمجفا وصلي يا إله واو وجزي واو ودم واو وانا محمدنا المختار في القدر سكر جمجفا وصلي يا إله واو وجزي أبدا واو أنا محمدنا مختار في القدم doyaluñu doyaluñu nag wax dëgg yàlla mais waxtaan bi faw ñu faw ñu yemale ko fii euh, peut-être man xanaa moom boobu moom man nga koy may parce que gis naa tamit sa benn vidéo nga woy sëñ Abdou Aziz sëñ Abdou Aziz xaw ma sëñ si Abdou waaw waaw waaw loolu Fouta. waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw way woowu moom. way boobu Sam il faut il faut nga kii ko. maanaam defaat ko. <laughs> way woowu moom maa ngi. ah. ah mais gàmmu tàmbali na. Mhm. gàmmu tàmbali na. Mhm. Eh, eh, xam nga ni gàmmu tàmbali na. wala nga wax ñu un peu rek ci loo ko gisee sëñ Babacar Sy Abdou. gis nga sëñ Ba eh, Abdoul Aziz. xam naa ñu wax loolu rek ndax mi ngi maa ngi leen téye sëñ Babacar Aziz mooy Seydi El malik Malick nekk gi mu nekk Seydi El malik ay magam ay baayam ay maamam ñoo ne ko kaay représenté Seydi El malik mooy kaay toog ci jàkka ji toog ci daara ji alaaj Malick ñett la sampe woon addinaam alaaj malik mooy jajuba jàng julli bay sëriñ Babacar si Mansour sëriñ Babacar Abdoul Aziz moo ne ca jàkka ja pap sëñ bay amul bëkk néeg amul protocole day recevoir ba heure am heure am jot nga ca jullee néew ya ma nga ca takk sëy ya ma nga ca njàngal daara ja xoola corona bi mm-hmm. njabootu daara ji yëpp moo leen tëj internet leen ci biir kër gi kenn génn mu boole añ ak reer ak ndékki ak xam-xam di leen ko jox mm-hmm. ñett yooyu nag ëpp na Tidiane Mbaye goreel ma lay jox xam-xam joxal sa bopp añ mm-hmm. ma lay jox añ ak reer waay waay joxal sa bopp xam-xam waaye añ mm-hmm. reer xam-xam ëpp na nag <laughs> ëpp na mos ah, ëpp na Pape Sëñ Mbaye loolu la nekkee woon <laughs> moo joxe añ joxe reer boole añ ak reer di joxe xam-xam mbaax yiw dëggu Pape Sëñ Bay Mansour Pape Sëñ Bay Abdou l'infatigable du sonn du tay Pape Sëñ Bay abdu boo demee ci jataay day day bëgg ñëpp bëgg ñëpp maanaam ñëpp jub tay tay Pape Sëñ Bay Abdou amul noonu tijaan yi ñoo gën a bëgg Pape Sëñ Bay Abdou murit yi ñoo gën a bëgg Pape Sëñ Bay Abdou man am na tey dama mës a dem damay mës a tukki yor oto am ku jàpp policier ñu ma foo jëm ma ne ko Tiwaawan mu ne ma xaaral wiiri ñëw fekk ma fi ma toog maa ngi taal climatiseur mu ne ma wàcceel feen ma wàcceel mu génneel ma mu génneel ma ay vidéo Pape Sëñ Mbaye Abdou ni ma man du ma jullit catholique laa mais kii mooy sama feuille de route waaw man du ma jullit chrétien laa gëwma lii ngeen gëm mais kii mooy sama feuille mhm. kon kooku mi ngi defar nit ñi mu ngi defar julit mi ngi defar fi tekat fii ci wetu njaxaret fii la ma ko waxee fii ci wetu njaxaret gii fii jigéen la man du ma julit man duma ma katolik laa waaye kii mooy sama feuille de kon bàyyi gi mu bàyyi woon lépp dëkk ma lépp bàyyi àddina jublu daara ji jublu mbokk taalibe yi Pape Sëñ Bay Mansour Pape Sëñ Bay Abdou ku ko ni dama ni soo ne Pape Sëñ Bay dama ni mun la ah boo bàyyiwul du siggi ngir jàll da ngay yëg ni góor gi sonn na mais yaa ngi koy diis soxla di ko wax problème du noppi du siggi du jaaxle du la jàmbat coono fekk pare woo ci mm-hmm. kooku mooy Serigne Babacar Sy bu ma laana Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh xanaa ma bàyyi la rek euh, nga tëj ak ban message ngay wax jeunes yi ci gàmmu gi bàyyiwaat xel ni màgg mm-hmm. màggaluñu dara lu dul guddi juddu yonent bi moom la ñuy màggal guddi juddu yonent bi nag war nañu cee jële ay jikko waaw bu paasee nga dem ci gàmm ñun la alaaj yeneen alaaj maa neen yonent bi daawul fayantoo lu ñaaw daawul ku ko lebal lu baax ku ko lebal mu lu bon mu fay la mbaax ku ko lebal njëkkadi mu fay la njekk war na nekk leçon ci yow ci nga góorgóorlu waat xel te mbokk yi li nekk ci réew mi ñaaw na réew mi li fi xew ñaaw na réseau sociaux yi nañu wàññiwaat bàyyi xel suñu kilifa yu nu am da gis ku nekk ca àll ba tëju ci biir néegam def boppam live tudd benn kilifa wax ca lu bon benn kilifa wax ca lu loolu ñaaw na noonu bàyyante xel ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala yàlla dolli ñu cofeel sunu sunu cofeel yàlla ko yàlla dolli baax a tëj nag maa ngi tëj maa ngi nuyu xalifa bi sëriñ Babacar Sy Mansour di ko ñaan moom moom sëriñ Babacar Sy Mansour di ko ñaan mu ñaanal nu yàlla bu nu deñ di nekk njabootam njaboot nag dina jaar fu neexul kilifaam yenn saa yi day juum rek njaboot dina def lu ko kilifaam santul waaye day juum rek njaboot dina def dara te neexul kilifa ga waaye kilifa yi nanu jéggal te xam ne ñun seeni njaboot lan waaye ñun njaboot yi it nanu jég nanu kilifa yi jéggal bu mu ñu tax a na ñu xam ni ay njaboot lanu yam cadre njaboot nuyu ko baax a baax ñaanal ko nuyu bàjjen ay de si soxna Faat si da baax soxna umu xayri da baax nuyu ko baax baax baax soxna umu këlsuum da baax ñaanal leen yàlla dolli leen sutura dolli leen barke soxna Lalla si soxna Fat si al amin nuyu soxna kantum si soxna kantum si nga xam ni eh, tabaarakallaahu soxna kantum soxna Ayda mooy doomu xalifa bi wax naa dem ma ni kaar bi njëkk a gaaree jëm aljana rasululaahi apprenti bi jibrilay jibrilay chauffeur bi rasululaahi chauffeur bi jibrilay apprenti bi eh, paas ñaata ñu ne ashhadu an laa ilaaha illallaah ki njëkk laaj paas jigéen la xarijat la tudd mhm. jamono bii ñu toll dañoo def dañoo wut benn bus bu mag def ko muy bis ànd liggéeyal alaaj maag lan tudde bis bi Tiwaawan lay déparé Serigne Babacar Sy Mansour mooy bi Cheikh El Hadj si Sy Maodo ak ñi koy jàppale ñooy apprenti yi ki njëkk a laaj paas ñu ne ko liggéeyal a ñu tax a jóg jigéen la soxna Kantoum Sy mu Serigne Babacar Sy mu Cheikh El Hadj Mansour mu Seydil Hadj Malick soxna Kantoum Sy mu soxna Aïda Sy mu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz mu Seydil Hadj Malick ma nuyu ko ñaanal ko yàlla dolli ko nuyu soxna Kalambay ñaanal ko moom itam yàlla sàmm ko te ko waaye nuyu nag sama buntu ci kër Seydi El Hadji Malick di cheikhi wa sayidi wa bayaada ayni cheikh Seydi Mouhamed El Habib si mu cheikh El Hadji Mouhamed El Mansour borom daara ji mu Serigne Babacar Sy mu Seydi El Hadji Malick maa ngi ànd ak samay Serigne nag li may ñëw alhaaji Ousseynou Ndoum tabaarakallaahu Seydi Ahmed Ndaw Ahmed sama rakk la waaye sama goro la ànd ak tabaarakallaahu Seydi Ahmed Tidiane Mbaye borom yat wi ànd ak alhaaji Libaas alhaaji Pape Ousmane alhaaji Moussa Gissé ñu àndandoo ànd ak yéen ngir bég leen teg yéen ci Seydina Mouhamed lii nag du émission mu leer ci nopp nit ñi man duma dem fu ma kilifa yi joxul digal lii du émission waaye dafa am ñu ma fasanteel kóllëre ñii aw ma seen fay waa Sénégal aw ma seen fay ci mbaax ci yiw ak cofeel gu nu am ci man euh, Sénégal jàpp nañ ni ñoom Tijaan yi wala Tiwaawan kenn rek moo fa existé muy Alaaji Saam ngir seen cofeel ci man ci directeur la tàmbale nag ci ak ba ci personnel bi yépp seen cofeel ci man yëg naa ni bu ñuy ñëw ci man dañuy sawar yëg naa ni bu ñuy ñëw ci man dañuy firi loolu nag mbaax la ak yiw moo tax lii du émission ñëw seen kër la ñoom seen kër la mu ñëw parce que fii ñoo ko moom tabaarakallaahu ñun ñoo bokk yëpp am na sax yuñ may defal waaye du ma ko wax <laughs> am na sax yuñ may defal waaye du ma ko leeral macha allah yal yàlla fay leen te taxawu leen soxna Ayda yow itam sunu jigéen nga sunu rakk nga ñaanal la yàlla sàmm la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu